Ramadan a ngi weeru uh-huh. yërmande uh-huh. Ramadan a ngi weeru njëggale Ramadan a ngi weeru yërmande Ramadan a ngi weeru njëggale jigéen ñi wuy si leen woote mag ñi te jaamu yàlla te roy ki naan jigéen ñi wuy si leen woote mag ñi wax di lool de gis ngeen li gis ami moom mi ngi ëmb benn ñaar mu naan day woor ah dafa war a woor de wurta woor kay moom su wooree doom ji dee léegi mu lan lay wax non dee yàlla moo ko yar rek daa war a woor ay su doon man la damay lekk ba suur naan ba màndi duma woo suma yoon nekku si waaye li ngay fi nekk di warante duñ dem laaj suñu bàjj moom moo ñu gën a moo ñu raw place tey moom moo dina ci xam dara waaw ñëw leen ñu dem ñu dem laaj ko jigéen ma di yaay man jigéen may jabaro man jigéen ma di yaar may yor kër gi tam waa bàjjen ñu na sànq dañoo toogoon fee di werante ndax ki ëmb daa war a woor wala wul woor waaw ki nga xam ne nag day woor ba pare tollu diggante bu fekkee bu wooree doom ji day loru kon koor gi moom du ko woor day bàyyi ba koor gi jeex mu fay ko waaye bu fekkee ne bu ko leeree ne bu wooree doom ji du da du def dara moom day woor weer wi waaye nag su wóorul weer wi day day fay ba pare am na ñoo xam ne nag si yenn borom xam-xam yi dañoo wax ni pare day fay ba pare joxe dara waaye li gën a wér mooy mu fay ko rek bañ a joxe dara. ba ci ki nga xamante ne nii day nàmpal bu ko leeree ni maanaam bu wooree day day lor doom ji maam dina manqué soow wala wala du am kàttan moom it koor gi dañ ko koy jéggal ba ba weer bi passé mu fay ko waaye bu koy fay nag day ànd ak mudd maanaam mudd maam bu fekkee suñu réew suñu dëkk bii nii mën na joxe kilo fekkee dëkk yi nga xam lu mel ne Bawol ak yooyu nga xam ne ceeb moo fa ëpp mën na joxe euh, lii rek mudd ci ceeb maanaam bu boolee ñaari loxo yi nii ceeb ba mu fees rek mooy tolloog lii bër bu dee Saalum nga xam ne moom dugub ba fa ëpp tamit noonu rek la defee joxe joxe mudd noonu lay na. leer na ki nga xam ne sax daa màgget amul kàttan woor moom waaye nag saa su dogee day joxe kilo mm-hmm. feebar tamit moom it. bu bu ñuy woor dañ ko koy jégal waaye moom day day joxe mudd rek comme ni nga ko waxee ba comme feebar yenn feebar yi maanaam ay feebar yoo xam te maanaam boo maree daal dalay lay sonnal daal mën nga see sax ñàkk sa bakkan loolu islam dala koy jégal ndax it bëggul di di lor nit ki mm-hmm. dañ ko koy jégal day joxe mudd merci Badiane leeral yi am na solo trop ndax am na ñoo xam ñoo ngi ëmb di nàmpal te xamuñ si woon nii nii yëpp jërëjëf Badiane leeral yi am na solo yow lu ma la waxoon dangay dëgër bopp rek ne woon naa lu wërta woon